et puis di dalal ci une émission Rio jamono euh, di leen aussi di Gurum. si euh, ci seen à chaque fois chaque ajuma euh, et puis ci interaction yi nga xamante ni ak retour ñi am ci émission bi bi passé ñu doon wax ci épreuve épreuve nekk li ñuy wax ci wolof nattu mu en belle compréhension boo xamante ni moom lañ ci qui n'est pas forcément compréhension Parce que ci parce que nit ku nekk mi ngi japp ni que natou pas ni que borom subhanahu wa taala que après tout de am na luy forcément alors que sallallahu dafa ne yému na ci que ñu ne ko lutax mu ne day dund dara mu neex mu ne mu dund ko mu metti mu gën donc c'est pas la différence en fait si nit ki ndax impression wala xam nga signification wu muñ ci nattu yàlla wala résilience la résilience bi nga xamante ni daf lay ci nga ne ñàkk pexe moo ngay muñ wala euh, patience mais patience boo je m'explique dafa am no xamanteni non lañu nous avons li nga xamanteni ni muñ manam natou épreuve épreuve dafa am yu épreuve ci lay bok boy set sax mo gëna nexa euh, comprendre ci explication te bu yalla may mu am ngëm nit bu may mu am dégg-dégg ko expliquer au début mën na bañ ko ni mais expliquer simple bi compliqué moy nit bi nga xamante ne muñ nit moko ko déjà distinguer li nga nous yalla de nga parce que borom subhanahu wa taala du wala nit ki c'est euh, mbir à dire que c'est à cause de nous que ko mi parce que la plupart du temps nous, nit ñi lan problème nous Adam. dañuy def mbir suñu mbir ñu dem day dem ba à un moment mbir bi ñuy def dañ koy faral di ko def di ko def di ko def mbir mi ñu ci duñ ci gis dara lu négatif affaire bi day day indi toujours quelque chose de bien de positif jékki-jékki yi fi wëlbatikoo dëpp su wëlbatikoo dëpp nga gis nit ki en fait moom lan lay gis lan moo tax liy dal ko mu daal di soit nekk épreuve bu jógee ci yàlla soit mu nekk épreuve bu ko nit teg wala mu nekk loo xamante ne moom moo ko sabab ci boppam moom moo ko def

moo tax nit chaque fois euh, da fay bax so ñaan borom subhanahu wa taala mu jéggal la da nga naan ko ma ngi lay ñaan nga musal ma ci conséquence su yi may def parce que bàkkaar mën nañ la ko jéggal mais conséquence jeexital yi jóge ci bàkkaar bi <laughs> mën na dal sa kaw loolu ñu bari xamuñu ko dañu naan par exemple nit ki mën nga baña tay nga tour ndox ci sa kaw teyoo ko daf la rëcc nga tour ndox pas tour ndox genre de l'eau mais nga tuur ndox nga saw si sa kaw dafa am xet nga def ko tayoo ko mais il n'empêche ni que même su nekkee ni que tayoo ko xet bi dina nekk ci yow sa yére dina xeeñ su ma jëlaatee beneen exemple mooy nekk nit ki euh, euh, nu mu tudd mu sàcc keneen walla mu rey nit ki mu rey famille am peut-être jéggal ko mën na nekk walla ki mu sàcc jéggal ko mais procureur autosaisir daal di jël nit ki tëj ko pourtant ki mu ko def jéggal na ko mais état bi moom moo jël donc li ñuy woowee système judiciaire moo jël kii yam euh, responsabilité am autosaisir tëj nit ki borom bi subhanahu wa yàgg ngeen koy dégg mën na la jéggal bàkkaar yi nga xamante ni diggante la yow ak moom mais yow mi nga xamante ni dangaa defal sa beneen moroomu nit wala euh, les animaux wala bépp mbindeef nga tooñ le sa diggante ak mbindeef yooyu yàlla du ci dugg te pourtant su ko neexoon dugg ci ndax moo ñu sàkk ñun ñëpp bu boobaa lan lay def daf lay bàyyee kooku donc nit danga nga war a comprendre que ni épreuve yi nga xamante ni moom ngay dund dafa am catégorie et am na catégorie yoo xamante ni mënoo koo teg ci responsabilité borom bi subhanahu wa ndax borom bi subhanahu wa taala ci boppam même su nekkee ne que moom mooy dogal lépp. même si nekkee moom moo créé loo xamante mais mom du la ko ndax yalla il est juste jommal nako bopam boppam du ko par contre buñ lako ko wala fuñ lako ko sétal yow ce degré de responsabilité ding ci am moo ñuy indi ci lan ni ci nga dañ nan la waaw euh amna ñoo xamante duñu jullit ñu charia top ñu dara te pourtant ñom dañoo tek seen vie moji voilà waaw d'accord amna Euh, mais boo ko jëlee noonu da ngay sonn xam nga tax da ngay sonn iblis ki nga xamante ne moom amatul yaakaar waxuma la yàlla amatul yaakaar de iblis parce que iblis dafa am si ñoo xamante ne day am encore yaakaar si ñoom que mën na leen a recruter mën na leen a récupérer ñi am nag yaakaar ci ñoom mooy ñi nga xamante ne dese nañu ngëm wala dese nañu benn espoiru njub wala koo xamante ni mi ngi tegu ci yoonu njub di góor góorlu madame quelqu'un qui se bat tous les jours di jug di kii di jéem daal di di di di di dépatouiller pour génn ci mbir mi iblis kooku da koy intéressé mais iblis ki nga xamante mom ci bopom yaakaaram tass na ci kooku parce que Yalla mom par contre yaakaaram du tass si kenn tant que kooku noonu gennul adna parce que Yalla ci bopom mom moo wax ni que tant que gennulo adna tant que euh ki wuñu ko départiruñu ko ak sa jëm am nga espoir tout tuub yon donc foofu mom ben affaire donc Iblis bu leen fàtte ni que moom tamit mbindeef le comme ñëpp moom tamit fay am ay yaakaar ci gars ki nga xamanteni Iblis amu fa yaakaar daal ne kii moom toute façon mom pare na kii dugg sama camp ba pare foofu dafa dem di fi sonal bopam donc lolo tax yeen say ngay gis ko xamanteni lu ko neex lay def nu ko nu ko neex la koy defé mais lepp da ngay am impression loo moo tax ci ci ci langue impression bu baax da ngay yow da ngay njort njortu la moy impression da ngay njort ni que ah kii de mi ngi nii. julliwul woorul deful dara te pourtant amul benn problème mu àddina waaw moom julliwul woorul deful dara amul benn problème mu àddina mais yow mii di jéem a julli wala di jéem a woor di jéem a teg sa sa vie ci yoonu yàlla yow yaa ko ëpp problème parce que yow la iblis bëgg dérouté ba pare yow la borom bi subhanahu wa di teg yenn nattu yi pour xool ndax yoon bi nga jël di nga ci taxaw maanaam ndax am nga détermination nit nag. day am détermination ci àdduna détermination da koy teg ci lu baax nit mën nga juum ñun ñëpp juum nañu yàlla dimbali ñu ci kàttanam ak mbaaxam jubalaatal ñu teg ñu ci yoon te ba tey li ñuy wax tànk gaal ga àggul xamoo fan ngay mujj donc lépp rek dañuy continuer di ñaan rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi axirati xasanatan wa xina xasaban naar rabbana la tudir qulubana baxda is hadaytana wa xab lana min rahma innaka antal wahhab ñun ñëpp dañuy ñaan saa yi ñu julle yàlla nañ yàlla jugal yàlla nañ yàlla jugal àddina ak àllaaxira di ñaan sutura donc bul yow nga xool ni que épreuve yi nga xamante ni danga koy dund c'est parce que tekkiwuloo dangaa ñàkk chance sa ndey liggéeyul sa baay liggéey na amoon barke na amoon nanga xoolaatal sa bopp ci li nga xamante ni danga koy dund ndax épreuve la véritablement boo xamante ni si borom subhanahu wa taala nga jóge wala lu la teg ndax yàlla moom lu mu la teg moom ngay ñaan mu teggil la ko wa illa nga ñaan ko mu wàññi ko ba nga ko mën ko supporter ndax nga wan ko ni ko yow nangu nga ndogalam ci yow mais li teg épreuve boobu yow yaa koy sa bopp parce que nit luñ la teg nga tegoo ko daa fekk nga bëgg mais li nga xamante ni yow yaa ko teg sa bopp loolu honnêteté moo koy dindi mooy lan le fekk que nga toog nga waxtaan ak sa ñegenaay nga xam sa bopp même bu la nit ñi xamul nga xam ne que lii ak lii yaa ko liggéey. colligé il y a dix ans 2 ko y y ans ya il y a deux jours y a trois jours yow xam nga la nga xam tane ko ne que ñep dañ ko wala ne que yalla daf ko Ou wala ne que tout simplement euh, ken du ci en compte et que aduna bi yow ni nga tracé non lay su yi dal sa kaw nangul premier remède nangul li kat ba pare so pare soo mënut a réparer nga naqarlu ko sa sa sa xol xam ne que lii nga defoon dangaa juumoon yàlla teg na la dara wala yow mi sa wàll bopp teg nga sa bopp dara loo xamante ne te yàlla du juum ku mu fay sa bor rek nga mer daa fekk ne que la nga leble woon a baaxul moo tax affaire épreuve dafa nekk loo xamante ne c'est très important que nit ki am d'abord une honnêteté envers boppam te ñun jamono bi ñu toll dafa nekk lu ñu manqué dafa nek lo xamanteni daf ñoo manqué ça à que on a du mal à di concentrer wu en fait ci suñu ay jëf on a du mal di di di di am recul par rapport ak ñun on a du mal à se considérer ñun par euh, euh, comme ñoo xamanteni ni mën nañoo tooñ mën nañoo et que ñun suñu wàllu bop mën nañu duggal suñu bop ñu ci tuuxi doona

mais bi nga xamanteni dafa juste pour xol ni ndax yow mi que deug nga bo xamanteni euh, ak résilience manam résilience moom ak ñak mais ngay démé vraiment euh, ak ngëm manam indi na li tek que def na li tek na na nga di siggi di daanu di nga

borom bi subhanahu wa taala xamna naa ne lii yow yaa ma ko teg maa ngi lay ñaan si sa kàttan ak sa mbaax ndax li nga ma teg yomb na si yow nga teggil ma ko te àddina bii may dund nii xam naa ne ko lu mu yàgg-yàgg dama fiy jóge ndax gan dong laa fi parce que nit mënuloo dund loo xamante ne da toll na tal fatal ayn si li nga xamante ne moom moo ñuy xaar muy éternité li nga xamante ne du jeex parce que àllaaxira dafa am force ki gëm ak ki gëmul àllaaxira dafa am kii nit ak kii jinne àllaaxira dafa am donc nous voilà, a non noonu nit ki suko conscientiser di ci dem di nga gis nga borom bi subhanahu wa taala ben pas bobu non nit ki lu ko xeeb xeeb xeeb bu ndaw boobu mu def bur yalla en fait dina def retour ci montes, te retour mi def mom moy gëna gaaw il faut juste qu'on comprenne que les épreuves en fait euh, ne sont pas forcément faites pour nous détruire Lolo, la plupart de nous ñep dañ koy xam.

njëkkee ko ci man naa ñun ñëpp mel noonu pour la plupart temps am na nag ñu ko meloon ñoo xamante ne fa tabaarakallah macha allah ils savent vraiment euh, téye seen bopp donc dangay ngay ingrat tout suite da ngay fàtte moment yi nga xamante ni lépp yomboon na moment yi nga xamante ne yëpp balaa ngay dugg ci tooxi doona balaa ngay nekk ci kii situation sax borom subhanahu wa taala dana ci cëppet génnee la si wala danga koy frôlé nii rek yan saa yi sax da ngay toog ba daan ne ii yàlla daf maa bëgg mais da gis ni que saa yu affaire bi dalee pour que mu war a metti nit ki bu boobaa dafay taxaw mais taxawaay boo xam te ni taxawaay ingratitude lay doon yan nañ borom subhanahu wa taala dindi jikko boobu ci ñun def ñu bokk ci nga xam te ne ñoo am reconnaissance parce que justement les épreuves jullit ci boppam par rapport ak épreuve yi dafa war a nekk benn attitude boo xamante ne daf koy am mais attitude boobu du doon attitude du naafeq maanaam du hypocrisie boo xam te daf koy am vis-à-vis de lui-même maanaam il faut rester sincère avec soi-même.

mais le lendemain nga sante ak keneen ku indi indiwaat beneen raison boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp lu ñu wax dëgg la ah. sauf que kii beneen facette bi la lay indil ne la ah déet bul ne que borom subhanahu wa taala lu ko neex lay def et que su ko neexee épreuve bi la ko teggil mën na la koo tegal noonu nga koy dund ba keroog ngay génn àddina mën na nekk genre xisaab. am na kenn ku ma si sa waxtaan benn bis daf ne ma si bul ne ma que sama feebar bi nattu yàlla la parce que man loolu dama koo dégg ba nga xamante ni ça décourage il faut pas me dire ça parce que j'ai pas envie d'entendre ça ma ne ko c'est dommage parce que man c'est ce que je vais te répéter parce que mënuma laa wax lo xamante ni du dëgg ndax feebar nit mën nako tek bopam nit ñu téré mbir diko ko téré diko ko téré tere te jamono bi ñu nekk dafa am surtout sama moroomu jigéen ñi am na ay yu bari yu ñuy téré ñu def diko def ba yenn yi indi yenn xeetu feebar yi te soo ko nit ñi mer ce qui est, ce qui est aberrant d'ailleurs c'est-à-dire que les gens te disent d'éviter certaines choses tu les fais tu tombes malade nga voilà bah c'est le sort de Dieu bah non bah non

c'est-à-dire à un moment il faut que ñu xam ne que même bu ñu doon dund téeméeri at ci kaw suuf mu neex ñu ak mu naqari ñu li ma naan ñun sénégalais yi même bu ñu matoon dix-huit millions ba bu ñu dajale woon ñun ñëpp ne yàlla ñun lii ko lii lañu bëgg du tee mu def ko du ko def te ko ne woon dañoo bëgg dindi lii te waru koo dindi du ko dindi yàlla yàlla moo ñu ñu mën ñu ñun ñëpp ci loo xamante ni du dëgg. bu tey ni que mbir mi du ma si doon dëgg loo xamante du deug du deug fa lay yam lo xamanteni deug la deug boobu fa lay demee donc nit ki su nekké ne da nga bëgg a génn si situation bi nga toll te aduna bi fi ñu toll nii ñun ñëpp on est vraiment dans une situation très compliquée ñun ñëpp benn par benn ku ci nekk yaa ngi yenu loo xamante xamoo foo koy yenne ko ki la ko yen su nekkee ne que ba nga defee sa analyse xam nga ne que lii kat ci borom subhanahu wa taala la jógee yenu lu mu gën a rafetee te ñaan ko moom mu wàññil la paa mu teggil la ko complètement su nekkee ni que doomu aadama moo la ko yan yennee ko ko teg ci suuf baa nga yanaat ko ko moom su nekkee ni que yow mii yaa def loo xamante ni moo tax mbir mi wëlbatiku sa kaw amal l'honnêteté de toog da xam ne que yaa teg sa bopp nga jéem a rectifier les choses déjà en essayant de euh, réparer li nga def soo ko mënut a réparer nga baalu soo ko mënul nga toog yenu sa croix comme on dit yenu li nga war a yenu ni mu gën a rafetee te bañ a te xam ne que kat yaa ko togg donc heure yàq dafa jot ce qui nous amène à quoi ce qui nous amène à comprendre que nit bu nekk mala bu nekk jinne bu nekk mi ngi yenu garab sax nga yenu gàncax mbindeef la yenn saa yi nga romb garab boo xamante ni ci kii bi mu nekk euh, euh, tund bi mu nekk Euh, génération garab yi juddoondoo ak mom ak même euh, variété garab bi ñi ngi mag comme il le faut et tout Mon mag ko te pourtant tayu c'est pas de sa faute amna ndox amna amna nu mu soleil amna na sauf que en fait borom subhanahu wa taala mo technique mom il sera le moins beau des arbres jinne yi ak nit yi de la même manière parce que jinne ak nit ñom la yalla togg jëf

tant que nous, en fait, on n'intervient pas en tant qu'être humain de la mauvaise manière. sous nos interventions euh, de la mauvaise manière si l'écosystème bob l'écosystème xamante la vie des êtres humains et qui est parsemé de l'écosystème, épreuves ay nattu écosystème bob jouer ne serait-ce que Ben tierce Ben note c'est une fausse note écosystème bob modifié sont ma ou un jour ou l'autre ça retombe sur tout le monde Mon tax nit ki bul foog ne que yow li ngay def ci lu bon ci yow rek lay yem au fil des années ñun n'y dañ koy seetlu di nga dem ba ci yàgg nga ne ay man li ma daan def avant loolu de même su nekkee ni que tey jii am nga yaakaar ak comment on dit yakin donc moi certitude yakin moi certitude si si wolof moi Euh, lu la lu la leer daal nga xam ne que lii leer na ne ko borom subhanahu wa daf la daf la ko jéggal il n'empêche ni que yenn saa conséquence su jëf yooyu mën na la topp wala conséquence su jëf yooyu mën na jur leneen loo xamante ni day ñëw dafay yàq et à ce moment là il ne faut pas jël affaire bi wékk ko keneen parce que fu mu nekk ni ci àdduna bi foofu lañ toll dañoo gaaw wékk mbir ci nit wala gaaw a wekk mbir ci borom bi subhanahu wa taala gis ngeen buur yàlla lu ko neex lay def kenn du toog naan man lan laa def yàlla su nekkoon ni que dañ doon defante ak moom xam nga ni que moom xajul ci ñun phrase boobu doon na phrase bi gën a garaaw bu nit mën a wax qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu le bon Dieu quand il te crée il t'a pas demandé ton avis le bon Dieu quand il te met tes épreuves il t'a pas demandé ton avis mais le bon Dieu ci boppam moom moo jommale da ñëw di defal nit lu di def nit lu xamante ni baaxul yàlla si moo ko ko neexoon bañ koo jommale boppam donte ni que dañ naan ne que moo créé lu xamante ni lu bon la dañ naan lu baaxul yàllaa ko créé waaye yàlla du la teg lu bon nit ki moom moo koy teg boppam mooy créer circonstance ak situation bi nga xamante ni mbir da koy da da koy daf koy dal te nit lu bon du forcément li nga xamante ñun mom lañu définir comme étant lu bon par exemple nit bo xamante ne dafa judd mu am handicap loolu du lu bon borom subhanahu wa taala moko ko tege loolu épreuve la ça n'a rien à voir ak lu bon donc interprétation yi nga xamante nit ñi dañ ko ci am di ci fustiger nit ñi et tout ça c'est une épreuve nit ki nga xamante da fay judd daal di wala mag borom subhanahu wa taala décrété ci mom ne que kii du am alal loolu dafa am da ngeen ko war a xam. am na ñoo xamante ni yàlla dafa décréter si ñoom du ñu am alal ñooñu noonu yàlla dencal na leen leneen su nekkee ni que gëm nañu yàlla te doyloo li borom bi subhanahu wa wàcce ci ñoom te xam ne que nit mu am alal wala ko mu ñàkk am alal buur yàlla bu nee ni que da ngay juddu la lay dundal ba keroog ngay génn àdduna sa subsistance ci loxoom la nekk nekkul ci sa loxo sabab bi ngay sabab ci la koy jaarale moo tax ñu leen sabab lu leen te bañ sukkandiku nit ki day mais ay waaw dinaa nekk milliardaire par la force dina am oto par la force am kër par la force yàlla dafa sàkk ñoo xamante ni dinañu am ñoo xamante ni duñu am te yàlla bu waxee nekk dangaa bokk ci ñi dul am dangay xam ni que li tax mu def ko moo ko xam bu du woon loolu kon du wàcc yonent bi saa salaam du ñu wax hadis bi nga xamante ne dafa ne ñi nga xamante ne dañoo ñàkk mooy les pauvres te ñu doon ay jullit yu yàlla nangul seen julliteem ba pare sotti ci ñoom raxma ak miséricorde bi leen yóbbu àjjana ñi ñàkk ñooy njëkk a dugg àjjana que ñi am ba pare war a dugg àjjana maanaam ñi am war a dugg àjjana ak ñi ñàkk bu ñu defaree groupe bañ ne bañ ne léegi nii ci jugement dernier ñi ñooy dem ajana ñi ñàkk ñi ñoo njëkk dugg loolu il faut ngeen xam ko donc su nekkee nekk nag épreuve yéen yàlla borom subhanahu wa taala di teg yéen jàpp ngeen ni que defante la et que buur yàlla en fait waaw voilà daf leen teg loo xam te ne waru leen ko teg. te mu nekk bunt boo xamante ne moom mooy buntu yiw bu mu leen ubbil pour que ngeen mën a am sutura àddina ak àllaaxira képp ku jàpp loolu xamal ne que dugg nga ci gaal bu bon bu bari fitees boo xamante ne xamul fan la jëme su la yaboon na nga wàcc tëb jéem a naage dem uti ji réew tefes nga daal di foofu xaar seetaat sa bopp ñun ñëpp ñu xoolaat suñu bopp te xam ne ni que fu mu nekk ni àddina bi jaxasoo bii mu jaxasoo dara indiwu ko te dara defu ko lu dul ñun ñii du ben nattu yalla du épreuve yalla ñun ñi ñoko tek suñu bop lu tax parce que toll nañu fo xamante ni fu mu nek ni ñun adna lañ def yalla adna lañ commencé di jaamu et ça c'est vraiment problématique et le pire mooy ne que ñun ñëpp xam nañ ko ñun ñep dañ koy fustiger dans les réseaux sociaux dans les émissions partout tout le monde le fustige tout le monde le dit

ki ku vision bi nga am et je sais que ça va être compliqué surtout euh, que pour nous, au Sénégal euh, on a une vision de la vie boo xamante c'est une vision tellement tronquée vision grave. garaaw xamante ni baaxul baaxul te Nous avons am ben affaire boo xamante un caractère on est chauvin je vous laisserai pour ceux qui ne connaissent pas le mot regardez ça sur euh, dans le dictionnaire en général terme le boo xamante associé koy pour euh, français on dit le chauvinisme français. Il y a le chauvinisme sénégalais. On est chauvin. On pense qu'on est mieux que tout le monde. On pense que nous, en fait, nous avons la science infuse. Non, nous, mamie, qui, qui, c'est un grand pays, c'est un petit pays, c'est un grand pays. Nous commençons à regarder le propre. Nous, individuellement, nous ne pouvons pas ça. notre propre. Nous ce chauvinisme. Inch'Allah, nous, allons poursuivre les choses di leen sant di leen gërëm ci seen remercier pour votre eh, patience et votre écoute et di leen ñaanal yàlla na borom subhanahu wa taala defal jàmm defal ñu may ndam suñu mbokk palestinien yi sàmm ñu nekk ca Gaza ñu jot a génn àddina ca Gaza yàlla na borom subhanahu wa taala may ñu bu bokk ci martyr yi dugg ci àddina yi gëna kawé kawe te yàlla na borom subhanahu wa taala sotti jamm ci kaw suuf parce que jamm mo xaj ci ñëpp. أي خجوتي كان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته